te sëñ Tuubaa ku mu jàpp ci yow nga dëgër këcc ñu taxaw fii nag ak ñi nga xamante ni macha allah ñoom ñooy Colline d'Or bu Brescia bokk ci sponsor yi bokk ci ñi nga xam ne jël nañ stand di jàpp ci fay gi nga xam si moom la ñuy fay fii di Pala George waaye nag di jàpp ci liggéey bu mag bi nga xam ne ñu koy liggéeyal Cheikhul Khadim Khadim Rasoul ci liggéey bu yaatu bi tubaar fa kàllakaar macha allah Soda ak Matar lañu taxawal waaye nag gannaaw nag tubaar fa kàllakaar la ñuy bàyyee waaye nag bala maa jox li Linguère sax damay dem ci seen géelu bopp seen géwél bi nga xam macha allah mu bañ ku guddal nag Ibrahima mbay Peex na daa xir ci ñoom présente leen adduna bi yëpp ba ñëpp xam ma mooy kan wax leen lan mooy seen taxawaay bu rafet bi nga xam si am nañ ko fii waaye nag kooku di ajaratu wax ñu li nga xam si mooy xéwal gi ñu indil waa yéen immigré yi tey rek ngeen di dégg lu am solo lu am maanaa ci képp ku bëgg or wala takkaay bu rafet Ibrahima Mbaye Peex dalalal ma sa géer ñi bokk alaaji Ngoti Mbaay ne da ko bandu nit mbokk ma loolu olof naan bu njëkk picc yi ñoo daan fekk tool yi waaye léegi tool yi ñooy fekk picc yi loolu nag mooy ñeeño bala may sa wuru sa ngalam boo ko jaayee wàcc génn ndax xandoor bu demee ci war wàcc na or tubarkalla macha allah dafa riis dafa baax ci denc xaalis tubarkalla macha allah dafa baax ci ci ci taaral taaral jigéen kon bu ngeen bu ngeen àndandoo li fi seen maam bàyyi woon di wurus ak ngalam ni dañ koy yóbbu ba ci diaspora bi yaatal ko wàcc ngeen xanaa te foofu suñu baaraam rek dékk leen suñu micro taataan ndeysaan sono sono ñu laaj la rek xéewal gi nga xamante ni si yaa ngi koy dig waa Brescia indi ko comme promotion fii nga xamante ni si ni moom mooy 8 juin date bi nga xamante ni si nag ah, macha allah c'est à retenir fu murit nekk ci àdduna rek bu jotee nga bàyyi yitte yoo mën a am digg teewee ko ndax góor yàlla ko sosoloon Serigne Mourtada yàlla ñu ko fayal soxna Soda loo ñuy wax ak loo indaaleel jeeg gi. nuyu naa la bu baax. nuyu naa la bu baax macha allah. li may indil jeeg gi moom mi ngi nii. ñëpp laa ko indil ñëpp laa ko bi yëpp. am nga possibilité loo am dugal ba mu mat su matee ñu livré la ko. te foo nekk ci monde mën nañ la ko livrer partout dans le monde yomb nañ leen am ay nat am nga acompte am su matee ñu livrer la foo nekk mën ko livrer incha allah ñoo ko déggandoo. Soda ak Matar leen indil mooy or. ku takk ku takkaayuwul nag yow la neex léegi yërmande am na fi waaye tamit xewal am na fi boo dee jigéen bëgg a takk na say morom boo dikkee ba waxtaan ak ñoom ba juboo loo am jox leen ñu téye ca la juboo su matee ñu livrer la sa or. jamono ji nag lépp àndul ñëw tawañi boo gis ci benn lay tàmbalee booy def ni soo de mataar wax bu yàggee nga bari or na sa moroomu jigéen yëpp.